alors loolu moo tax ñu ne il faut li ñuy wax euh, xam nga handicap dafa nekk problème euh, euh, transversal multisectoriel mhm. pluridisciplinaire sànq maa ngi lay wax éducation loolu xam nga am na ministère bu koy toppatoo maa ngi lay wax formation am na ministère bu koy toppatoo mhm. maa ngi lay wax santé am na ministère bu koy toppatoo transport noonu habitat noonu infrastructure noonu donc plusieurs secteurs interviennent dans le dans la dans, dans le domaine du handicap ce qui fait que donc ça devient euh, un, un problème transversal. Mhm. loolu moo tax ñu ne kon pour que ki yore carte bi yëg ne carte bi amal na ko njariñ ci wàllu transport am na liggéey boo xam ne ministère transport moo ko war a def ci carte bi. Mhm. ci santé noonu éducation noonu yeneen secteur yëpp noonu mais comme handicapé ñoom ñu ngi bokk ci. Euh, tutelle technique bu ministère de la santé et de l'action sociale ministère de la santé de l'action sociale mënul jox instruction collègue bu ministre am mmh. maanaam mënul wax ministre des transports yow na nga def lii pour carte bi dox loolu moo tax ñu ne comme conseil des ministres bii passé barki Dembo Ndiaye mmh. annoncé nañ ay réunion interministérielle yu bëri ñu wax ne war nañu mën a am une réunion interministérielle sur la question du handicap wala un conseil présidentiel sur le handicap l'intérêt mooy lan mooy d'abord ministère sectoriel yooyu ñu lim yëpp dinañ mën a toog ak président wala ak premier ministre handicapé yi toog bu ñu waxee premier ministre wala président ñi nga xam ni ñoom ñoo yore ndogal dinañ mën a jox instruction ministère bu nekk mu def li mu war a def ba nga xam ni bu handicapé bi yore carte bi carte bi dina am njëriñ dina am njëriñ te lool benn mécanisme la rek mooy carte bi am na yeneen mécanisme yoo xam ne jëlaguñu sax décret yi boo xoolee euh, loi bi prévoir na beneen mécanisme bu ñuy wax fonds d'appui aux personnes handicapées mhm. fonds d'appui boobu décret rek lay xaar pour taxaw fonds d'appui boobu tam lan moo ko taxoon a jot ñi nga xam ne rëcc nañu mënatuñ leen a ci njàng bi mel noonu ba ñu ngi ci mbedd mi di yalwaan fonds boobu moo leen di permettre ñu mën leen a jëlee ci mbedd mi encadrer leen jox leen ay formation courte et qualifiante ñu am lu ñu mën a def ensuite fonds bi accompagner leen par un financement ñu defaral seen bopp ay activités mën a bàyyi yalwaan beneen mécanisme bi mooy euh, la haute autorité mm-hmm. la l' article de la loi également par qu'il y ait une haute autorité mm-hmm. qui gère le le, le handicap quoi haute autorité xam nga boo xoolee sax at yële passé handicapé dañoo wax naan dañu war a am ministère et cetera et mais là la la loi a trouvé une haute autorité. haute autorité boobu day tax ñu mën a gérer l' aspect transversal du handicap parce que boo xoolee loi bi haute autorité boobu ñu ngi ko logé à la présidence de la de la république. Mhm. da ko bëgg a may gëdd boo xam ne dina mën a xool ministère bu nekk lan lay def mu jëm ci ci ci handicap loolu tam mécanisme bu am solo la. Mhm. ndax Sénégal dafa ratifié. la convention internationale sur trois droits des personnes handicapées te convention boobu dafa wax ne soo ko ratifié Sénégal ratifié na ko depuis 2010 soo ko ratifié rek war ngaa teg li ñuy wax un mécanisme national de suivi donc haute autorité boobu aussi dina mën a jouer rôle mécanisme national de suivi. Mhm. dernier mécanisme important aussi bu nekk ci loi bi mooy affaire liggéey bi parce que loi bi aussi wax na ni saa yu amee recrutement dans la fonction publique 15 pour cent yi. waroo nekk ay handicapé mhm. hmm. il faut se réjouir nag du fait que bëri na tey handicapé yoo xam ne ñu ngi liggéey dans la hmm. fonction publique hmm. waaye nag àggaguñu sori nañ trop àgg ci quinze pour cent vous êtes pour cent ah pour cent waaw mu nga des na lu bari des na lu bari donc loolu bu ñu ko appliqué woon déjà dina wàññi aussi chômage bi ci handicapé yi ba pare bëgg nañu xale yi handicapé yi nga xam ne ñu ngi góor góorgóorlu xam nga mos naa la wax defe naa ne la man bi may jàng fii université université de muy réy ko mag yëpp université Dakar quatre handicapés la ñu wax quatre dèjà ñaar yi sax gaañu nañ Jean Michel Bassène gaañu na moo nekkoon conseil juridique Socopao Omar Diop gaañu na daaw donc y avait ku ñuy wax Auguste Bassène ak man ñu rek ñoo nekkoon handicapé dans toute l'université léegi boo demee université Ndakaaru gii la fa nekk ci ay étudiants ëpp na 500 wax waxuma la nag yeneen université mhm. donc xale yaa ngi def effort. Mhm. ñu ngi jàng mais ñi ngi jàng ci environnement yu difficile wax naa ko sànq école boo xam ne sóoru la préparé wu la nga quand même góor góorloo ba jàng ci ba am diplôme war nañu la mën a encourager loolu moo tax ñu ne xale yi nga xam ne yëpp am nañ diplôme di handicapé muy góor mu jigéen li ñuy ñaan gouvernement bi mooy mu recruter leen. ci ñëwaat dina ñëwaat foofu ci point boobu parce que dafa am